ko ci chantier bi nga xam ne mooy le plan le Sénégal émergent mais ci kaw loolu nag dafa am ñoo xam ne liñ leen jox pour ñu dimbali ci la base parce que président nit la rek mënul lu dul jël signature am dénk ko ñeneen ñeneen ñoo ñu ko dénk war ñu ko war a mën a dénk ñeneen dénk ko ñeneen mu law mais dañoo seetlu ni à part le DG de la poste Siré Dia ñenn ci ay responsable ay ministres yu dénk imaginez yéen ministre bu ñu dénk nga toog at mënoo monter cabinet jël ñaari poste jox ko jeune kon boo nee président dinaa la dimbali ci l'emploi des jeunes wala dinaa la dimbali sabaa da nax nit ñi qui peut plus peut le ku mënta jël ñaar wala benn nit nela kaay ma yóbbaale la wutal la salaire bu ma la dimbali la bu weer wi dee nga am pooy ci jàpp nga defoo ko boo nee di ngay dimbali président da nga koy nax leget yi kese naxu li béy te leget yi fi nekkoon fii Thiès yëpp toj na mbir mi dañoo bëgg des emplois durable aider les femmes par des projets durables aider les jeunes par pour avoir des emplois durables parce que président loolu la wax nee na ñu dimbali sénégalais yi moom ci wàllu boppam bi mu ñëwee dafa defar couverture maladie universelle defar bourse de sécurité familiale defar defar defar defar temps tant tant pour aider la population sénégalaise donc ñi ñun ñi nga xam ne ñun ñoo ànd ak moom wax dëgg yàlla ñi ngi koy sant mais ñim ñu booleel wax dëgg yàlla dañoo fayir seen seen mission seen mission doxaluñu ko defuñu ko waxuñu ko donc gisuñu seen bopp yaa a que des responsables à Thiès ça il faut le dire il faut dire les choses qu'elles sont du awuñu benn problème ak kenn mais dañoo ànd ak benn pares man je me demande sax est dañoo nekk di combiner ki nekk fii à Thiès massifié wuñu ko dama ne la est-ce que newuñu di combiner suñu parti bi di di ko combiner kii nekk fii Thiès nee naa la APR bu existé buñ koy dégg ba léegi depuis élection 2014 yi ba léegi buñ koy dégg fii Thiès c'est grâce au DG de la Poste Siré Dia moom doo nga tax ñuy dégg APR Thiès Siré Dia doo a tax ñuy dégg APR ñi si desoon ñëpp démissionné na ñenn ñi dañ leen a jox poste ñu dem toog yi ñenn ñi dañoo demoon ñëwaat ñu jox leen li ñu leen jox nooy ñu ne léegi tax na comme Siré Dia nag moom mooy dof bi mooy Baye Fall moom lañ dénk liggéey bi mais nañ ko jël seen poste yoo jox ko. parce que mi ngi dimbali ndaw ñi mi ngi dimbali femme ñi waxuma ko ngir ndagg ko mais dama ko wax ngir bëgg gi ma ko bëgg président de l'Amérique parce que man ku ma xam xam ne je suis Macky à 100 man président de la République laay noyyee mais à Thiès y a que des ministres et des responsables paresseux muy ne mouillent plus le maillot dañoo découragé ils travaillent sans volonté ñooñu dañ leen fi war a jëlee dañ leen fi war a jëlee jox ñu ñun ñii ku ñu jox parti bi ñu gagné Idriss Seck parce que Idriss Seck actuellement nii jeexal na ba pare. Idrissa Seck nekk deseetu fi dara le problème mooy ñi ñu dénk les responsabilités ñoom ñoo yaatalul bu ñu yaatalee ñu am ndam nañu yaatal bu ñu mënul nañ ñu jox ñun ñu mën ñu gañe loolu laa amoon lu may wax ñu ngi leen sant di leen gërëm. jërëjëf Macky Sall moom mi wóolu DG Siré Dia ba jël dénk ko ko mu ciy dimbale ndaw yi ak askan wi ci Thiès waxuma Thiès mais Sénégal yëpp ah di wax ne DG man de Astou Gueye Ndiaye yaa gaaw ma gaaw. ndax nag jigéen ñi ba ñu ma seet seet ne ma mënatuñoo bale seeni bale tas na seeni bureet yàqu na ma ni leen denc ma lu ma leen jox de ndax aw ma benn poste de responsabilité dama nekk Baye Fallou Macky Sall rek nekkal ko ci naaj bi buntu bu ne fëgg naa ko muy ministre di directeur mennum directeur général Siré Dia moo ma ci jàppale ci matériel ne ma joxal jigéen ñi Fall mais man Astou Gueye Ndiaye sa Baye ndax yaa gaaw ma gaaw te yaa def ma gis. ah di leen wax ne DG li muy waxtaane bés bu ne doo toogal moom mukk te newu la góorgóorlu leen ci xale yi utal leen kayitu juddu mag ñi ñu dem inscrit ci liste électorale yi ndax ubbi na waa jaxaaw yéen ku ci amul carte électeur école jaxaaw ubbi na soo fa demee bindu 2017 ngeen euh, voté falaat président Macky ndax Siré Dia loolu ko tax a wax ne le DG Siré kenn mësu ko gis muy taxawaale kenn mësu ko gis mu yor oto ni wëndeelu kenn mësu koo gis mu wax lu mu warta wax la DG Siré Dia boo jàkkaarloog moom moo la woolu nga dem direction général fekk ko fa kon jërëjëf Dia ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di lancer appel ci président ñun jigéen ñi dañoo bëgg Thiès mu téye jël ko teg ko ci loxo Siré Dia mu yor ko ndax nag kiñ naan mooy maire di Idrissa Seck Siré Dia ko dàq Thiès ndax la mu waroon a def Thiès yëpp Siré Dia ngi koy def te Idi koo xam ne da nga nekk Thiès bàyyi fi sa njaboot nee nga da leen a dénk Thiès ñu jël suuf si di saax saaxee di def lu leen neex faale wuñu la mënaloo leen dara ku mënalu sa njaboot dara kenn du la dénk Sénégal. DG mu ngi ci consultation gratuite yi mu ngi def ci mosquée yi mu ngi def ci. jumaa yi mu ngi def fépp dama ni xale yi Thiès ku ci dawalul woon Jakarta yaa ngi jaay café Touba loolu wàññeeku na ndax la DG Pape Siré Dia ko kon président dooleel ñu DG Pape Siré ko président dooleel ñu Pape Siré ndax li mu yor mu koy bokk ak kon li mu li mu yor mu ngi koy bokk ak nit ñi ñun jigéenu cees dañoo bëgg président Macky Sall nga dooleel ñu Pape Siré Dia yëkkati Thiès dénk ko ko ñu ànd ak moom fan la 2017 au premier tour yu amul benn werante ah, di gërëm aussi ñi nga xam ne ñoo nekk sama ginnaaw muy Lamine Gaye Lamine Gaye Pape Pape Sarr di sant ñëpp di gërëm it sama xarit sama mag muy Ndey Daba Mbuub di gërëm sama frère muy Samba Ndiaye di santit sama grande sœur muy Awa Sarr dëkk fii ci Jaxaaw yéen ñëpp ñu leen di sant di leen gërëm